asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, man maa ngi tudd professeur Serigne Moussa Badiane nekk coordonnateur pôle santé ci projet université bu Touba. Euh, li ñu dajale woon fii tey nag euh, réunion de coordination la ginnaaw bi nga xamee ne liggéey nañ ci projet bi jamono yi yëpp dañ doon daje tey ngir xool état d'avancement liggéey boobu. Euh, ak it euh, gën a xool impact yi nga xam ne moom la formation yi ñu war a tëral di am euh, ci Touba ah ak ci réew mi dans le court le moyen et le long terme maanaam xool ko ci ci teew maanaam bu ñu tàmbalee ban impact lay am ci ci ci ci ah, diir diir bu gàtt ak bu ñu dox doxalee ba ci kanam ban impact lay am ak ëllëg maanaam ban impact lay am ci Touba. ak ci réew mi euh, ndax université boo ko déggee bu jàng la barabu gëstu la waaye it barabu faju la ci wàllum santé waaw ndax pool bu ñu nee pôle santé day am wàll woo xam ne euh, wàllu faju la donc ñi nga xam ne dañ leen di tàggat ci domaine yooyu euh, day nekk ñoo xam ne dañuy jàng di gëstu xam-xam mais en même temps day nekk ñoo xam ne dañuy pratiquer te pratique boobu ñuy def ak jumtukaay yooyu nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ci dëkk bi day am njëriñ ak jeexital ci wàllum santé ci ci ci dëkk bi ndax ci tàmbali bi rek dina permettre ñu mën di def ay analyse ci laboratoire yi dina permettre ñu mën di faj lu demee ni que jàngoro yi jëm ci wàllu bëñ ci biir université bi ak yu demee noonu maanaam dañuy jàng en même temps di exercer te loolu loo xam ne la lu am jeexital la ci ci askan wi. maanaam bu ñu waxee département santé day ëmb lépp loo xam ne euh, spécialité la ci wàllum wér-gu-yaram waaw waaye nag buñ tàmbalee doo lépp dañ koy tàmbali ci dañuy tàmbali ci lenn di euh, avancé ndànk-ndànk ci loolu maa ngi ànd fii tey ci ndaje mi ak euh, professeur Cheikh Mbacke Lo nga xam ne réew mi yëpp xame nañ ràññee nañ ko ci wàllu Euh, dentaire euh, diriger agence nationale également de recherche scientifique fii ci ci ci ci ci ci réew mi ànd ak euh, le docteur Thiam Makhoury moom nga xam ne aussi wàllu sciences infirmières maanaam ñëpp ràññee nañ ko ci ñooñu dinaa leen sax jox kàddu bu ko defee ñu gën leen a mën a leeral ci seen spécialité yooyu lan lañ ci mën a xaar ci université bi. perspective yi mooy tàmbali liggéey bi. <laughs> perspective bi mooy tàmbali formation yi waaw donc ci loolu lañ nekk waaye nag dañoo bëgg lu nekk bala ñu cee dem rek ñu xam euh, lu leer fu loo xam ne ñu am lu leer ci fi ñuy teg suñu tànk waaw ndax dañoo bëgg daal def liggéey boo xam ne bu mucc ayib ci ci ci ci wàllu université bi. je voudrais d'abord euh, remercier euh, le khalife général pour la vision en tout cas. pour euh, nous permettre d'avoir euh, une formation en dentaire ici à Touba. Euh, remercier aussi euh, Serigne Ahmed Badiou, qui est notre porte d'entrée au niveau du Khalif, qui porte notre projet et à qui nous donnons toutes les explications qui permettent au marabout de pouvoir prendre des décisions. Nous le remercions très sincèrement. Euh, je voudrais aborder maintenant tout ce qui parce que le projet concerne quatre euh, domaines. Il y la médecine générale, il y la pharmacie, il y a la chirurgie dentaire, qu'on appelle odontologie aussi, et enfin, il y a les soins infirmiers. Mais moi, je m'appesanterai sur les soins dentaires parce que je suis professeur en chirurgie dentaire, je suis professeur de santé publique, mais dont la profession c'est la chirurgie dentaire. Euh, et je suis au niveau de la faculté de médecine au, à l'Institut d'odontostomatologie. Euh, je voudrais, par rapport à la vision du marabout donc, je voudrais dire que cette vision eh, dépasse. Parce que si vous prenez le Sénégal, vous avez huit universités. Et toutes les universités, à part Dakar, il n'y a pas une section odontologie. Tout simplement, ils le veulent. Mais parce que les conditions ne sont pas réunies pour mettre en place une section odontologie. Si aujourd'hui le marabout pense dans sa vision à mettre en place une section odontologie au niveau de Touba, mais nous ne faisons qu'applaudir et nous ne faisons que le soutenir. Nous, en tout cas, professionnels de santé bucco-dentaire. Et, et je dirais pourquoi euh, plusieurs impacts. D'abord, Je disais au Sénégal, nous avons 500 dentistes. Depuis que nous avons commencé à former, nous avons formé environ 500 dentistes. Et l'OMS recommande un dentiste pour 30 000 habitants. Nous, si nous faisons le calcul, à Dakar, nous avons le ratio. Nous avons peut-être un dentiste pour 20 000. Nous, en un moment, nous avions un dentiste pour 25 000 à peu près euh, habitants. Mais si nous sortons et que nous allons dans la région, par exemple, de Djurbel, vous verrez qu'on se retrouvera avec un dentiste pour 140 000 habitants à peu près. Et pourtant, quand vous allez, euh, quand le, le, vous en France, c'est un dentiste pour 2 000 habitants. Vous voyez, donc l'écart est énorme. Et donc, ce qui conforte d'ailleurs la vision. Ça, c'est le premier impact. Le, premier, le deuxième impact, c'est que nous aurons un rayonnement international. Parce que tout simplement, il n'existe que trois écoles dentaires aujourd'hui à Dakar, euh, au Sénégal. Et dans la sous-région, en tout cas en Afrique de l'Ouest, il n'y a que euh, deux, écoles dentaires, c'est euh, Côte d'Ivoire et Sénégal. Et lorsque nous allons ouvrir cette section, ce qui est sûr, nous aurons minimum 200 demandes venant de l'extérieur pour s'inscrire à cette section-là. Ce qui fait un règlement international. Parce que euh, c'est comme ça, effectivement, on dira euh, la section odontologie de Troyes. et ce qui fera vraiment le rayonnement international de cette université, parce qu'on parlera de l'université de, de, Touba à travers l'odontologie, parce qu'il y aura beaucoup d'étrangers qui viendront faire leur étude ici. Donc ça, c'est un important sur le plan. Sur le plan maintenant local, nous savons tous que euh, les soins dentaires coûtent excessivement cher. Ce n'est pas seulement au Sénégal, même dans les pays, euh, parce que moi je suis économiste de la santé et j'ai fait des études par rapport à ça. Même dans les pays euh, européens, <laughs> mais la chirurgie dentaire, on ne touche pas. Vraiment, c'est pour les, euh, les nantis. Aujourd'hui, à Touba, on sait très bien que dans toutes les familles, il y a des problèmes dentaires. Et ce serait intéressant d'ailleurs, et moi je m'y attelais, je m'y attellerai, de faire une enquête épidémiologique pour savoir les besoins ici, en tout cas au niveau de Touba. Et je sais qu'on aura, je mettrai un étudiant dessus d'ailleurs pour faire une enquête sur ça, et je suis persuadé qu'on aura des chiffres, tout cas des prévalences très élevées. Ce qui fait donc que si on a cette formation ici à Touba, la formation, nécessairement, il y aura des fauteuils dentaires. Et nécessairement, il y aura des soins au niveau de l'université qui seront prodigués non seulement par les étudiants, mais supervisés par les professeurs. Ce qui fait que ce seront des soins de qualité. Et ça permettrait aux populations de payer moins cher et d'accéder à des soins de santé, surtout à des soins euh, dentaires. Donc, ceci va donc être un avantage sérieux pour les populations et ça va permettre de soulager donc les, les, les, populations. Toujours sur le plan local, nous avons beaucoup de jeunes qui sont dans les écoles, qui sont en train d'apprendre, qui peut-être demain voudront faire la chirurgie dentaire. Ça permettrait d'avoir des ressources humaines aussi de le, euh, localement. Et la formation va permettre d'avoir des chirurgiens dentistes qui vont, après leur étude, quand même, combler le gap qui existe à Touba avec des installations, surtout même privées, publique. Et ceci va permettre quand même, sur le plan, euh, en tout cas, euh, couverture, de pouvoir couvrir le départ, le, la région, mais surtout le département. Et mais surtout, de permettre à toutes les régions qui tournent autour de pouvoir venir à Touba pour se soigner moins cher. Quatrièmement, ça va permettre aussi aux populations d'accéder aux spécialistes de chirurgie dentaire. Parce que la chirurgie dentaire, il y a plusieurs spécialités. Et ça va permettre aux, aux populations, ceux qui allaient à Dakar, ceux qui allaient au Maroc pour se soigner, de pouvoir se soigner ici, parce qu'il y aura des enseignants spécialistes qui pourront les prendre en charge. Et globalement, c'est vraiment les impacts que nous pouvons dire. Et maintenant, il y a des impacts économiques. Ça, on y reviendra plus tard. Voilà vraiment les quelques impacts que je pouvais, en tout cas, vous livrer pour vous dire que dans la vision du calife, Vraiment, il est extraordinaire et nous pensons, nous en parlerons plus tard. En tout cas, c'est une chance pour le Sénégal et je pense que c'est une chance que nous allons saisir. Euh, maa ngi leen di nuyu bu baax euh, jiitu nuyu bi euh, sëñ Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg lool te wér bu baax sëñ Ahmad Badawi mi nga xam ne nii moom la sëñ Muntaxa teg loxoom liggéey bi mu gënuñ fi liggéey bi boobu léegi nekk ci di ci yëngatu ci commission yi man maay Mor Faye professeur Mor Faye maa ngi nekk ci comité de pilotage élargi bi nga xam ne nii ñoo ànd ak si Ahmad Badawi euh, di liggéey liggéey bi daal xam am bëgg mbégte rek ni euh, liggéeyu tey bi day loo xam ne dafa ñëw roofu ci fi newoon daal moom daal euh, liggéeyu am soo defoon ko ci ginnaaw ci commission yëpp di sàmmar li nga xam ne ni moom lañu war a jàngale programme yi di ñëwaat nag encore tey Euh, di euh, def benn ndaje moo xam ne nii ñu ngi ko jigloon mbirum sante mi xam nga santé moom daanaka daanaka mooy lépp daal daanaka mooy lépp ndaxte euh, boo amee wérgu yaram moom daanaka lu bari day day daal di yomb daal léegi nag moo tax liggéey bu mel nii ñu rafetlu ko bu baax a baax a baax rafetlu bu baax a baax xanaa xam naa suñu Ahmad Badou yu kàddu mooy gën a jóg kaw waaye xam naa remercier bu baax a baax ñi nga xam ñu ànd ak liggéey bi mu experts yi di fàttali tamit Euh, ñoom kàngam yu yu yu yu yu gën a kawe ci affaire njàngale ci université yi ci amee médecine ak aussi di wax tamit ni euh, liggéey bi yaatu lañ def nag ndaxte même commission bi nga xam ni moo def programme yi ñi nga xam ñoo nekk ci dëkk bi ci hôpitaux yi dëkk bi ay Matlaboul Fawzayni ak Ndaamaatu ak ñëpp ñoo xam ci structure de santé yi bokk nañu moom bokk nañu ak experts liggéey bi pour que li nga xam ne mooy offre de programme bi di nekk loo xam ne ni day nekk euh, correspondre li nga xam ne la. waa Touba soxla ci affaire soin affaire formation te sax affaire bi sax loolu sax Touba ndaxte eh, gi nga ni nga ko déggee léegi daanaka lu ñu wax rek eh, day day day day romb Touba ndaxte day Touba nañ ci am seen seen seen seen seen seen bëgg te nañ ci gis seen njëriñ eh, gox yi wër Touba ak réew mi yëpp dañ ci gis seen njëriñ daal mooy donc loo xam ne daal lu am solo lu baax a baax a baax ci. ci liggéey bi ñu def ci commission yi euh, bi ñu tàmbalee ba léegi daal. donc merci beaucoup euh, je suis le professeur Serigne Moussa Badiane donc je coordonne le pôle santé dans le cadre euh, du projet de l'université de Touba. alors l'objet de la rencontre d'aujourd'hui euh, la rencontre d'aujourd'hui est une réunion de coordination en fait qui porte sur l'état d'avancement des travaux que nous avons eu à effectuer mais également euh, on devrait euh, aujourd'hui donc n'est-ce pas, réfléchir sur les impacts à court, à moyen et long terme donc des différentes filières que nous comptons donc lancer dans le cadre de, du pôle santé. Également, euh, je suis accompagné euh, du professeur euh, Cheikh Mbakelo, hein, directeur euh, de l'Agence nationale euh, de la recherche scientifique, qui est un éminent professeur dans le domaine de l'odontologie, hein, qui va se prononcer également sur euh, son, département. Euh, également, je suis avec le professeur, le docteur euh, Mahouredja Chan, n'est-ce pas, qui est reconnu dans le domaine des sciences infirmières au Sénégal, hein, qui va se prononcer également euh, sur euh, ce volet-là. Euh, voici donc euh, les spécialistes qui m'accompagnent aujourd'hui pour euh, discuter donc de ces questions. les impacts il y, a, il y a les impacts. Nous avons des impacts immédiats parce que l'installation euh, d'un département de santé au niveau donc, euh, de, de l'université euh, va avec euh, l'installation d'équipements, notamment des laboratoires, notamment des fauteuils dentaires. Et tous ces équipements vont servir aux populations. Donc d'abord, nous avons euh, un cadre de soins qui sera mis en place, n'est-ce pas pour certes euh, l'enseignement, mais également pour des activités de soins hein, dans l'université. Euh, mais également, euh, dans le moyen terme, il faut s'attendre à euh, un renforcement donc, des ressources humaines en termes de euh, soins au niveau de la ville de Touba, mais également l'élargissement donc, de l'offre de soins au niveau de la ville de Touba, mais également cette au niveau international. Voici entre autres quelques euh, euh, aspects, n'est-ce pas, que je souhaiterais euh, effectivement euh, apporter, mais également il faut savoir que tout cela s'inscrit dans le cadre global du projet pédagogique de, de, de l'université. Je vous remercie. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah donc euh, maa ngi gërëm sëriñ bi ak ñu àndal ci liggéey bu ñuy def nii te ñu boole ñu ci ci réflexion bi en fait ñun ci fànnu peut-être euh, accompagner spécialistes yi ci xalaat ci mbirum administration bi nan la ñuy gérer yan structure la ñuy teg en place loolu mooy à peu près man suma wàll ci liggéey bi c'est juste dama ci jaamuwaale yàlla di ci aussi di liggéey si sëñ bi moo tax ñun ñu jàppale leen donc mais liggéey bi lépp ñii la experts yi ci gannaaw ñun c'est juste xalaat dimbale leen ci xalaat bi parce que aussi institut bu taxawee il faut moom am administration administration bu taxaw foofu mu am statu mais ñu ngi ciy xalaat ñu ngi ciy liggéey pour le moment loolu la ñu amoon li ci wax vraiment di gërëm lépp di gërëm sëñ bi aussi su ba léegi mu ngi je pense mu ngi baliser yoon bi te apparemment affaire baa ngi dem ba te yàlla ko yàlla yombalal te ñu egg ci ak jàmm quoi donc juste pour vous dire donc nous remercions donc le marabout hein, pour sa vision comme le dit le nous remercions aussi son représentant pour son éclairage et l'accompagnement Et nous, nous sommes juste là pour accompagner les experts dans la réflexion, pour l'encadrement administratif, dans la mise en place de l'école des soins et des, des, des, métiers de la santé. Et ce, cette école-là, ils l'ont dit, aura, est d'une importance capitale et il faudrait aussi peut-être l'accompagner en y adjoignant une administration aussi, aussi proche possible pour leur permettre, leur permettre d'être aussi le plus efficient possible. Voilà, c'était vraiment ce que je voulais dire. Et nous remercions vraiment le marabout et son représentant pour l'opportunité qui nous est offerte pour travailler pour la ville de Touba, pour le pays et pour le monde entier. Merci beaucoup. Euh, maa ngi tudd professeur Cheikh Mouhamadou Mbacké Lo euh, directeur général de l'agence nationale de la recherche scientifique appliquée enseignant à la faculté de médecine de Dakar euh, di ngeen ma may d'abord ma ñu gërëm sëriñ bi bim ñu boolee ci liggéey bu rëy bi ndaxte vision bu ëpp vision bi nga xam ne Serigne Mountakha am na ko wax dëgg yàlla ku ci bokk rek te yàlla daf la ci boole. di gërëm bu baax aussi sëñ Ahmed Badiou bi nga xam ne ñun mooy suñu porte entrée ci tey liggéey bi lépp li nga xam ne ñu ngi koy def moom lañ koy jébbal moom lañ ciy waxtaanal te moom moo koy yeggale sëriñ bi ba nga xam ne sëriñ bi dana comprendre fa ñu jëm. li ma bëgg a wax lii suñu coordonateur wax mooy li nga xam ne lépp mu ngi jëm ci Dentaire ndaxte institut loolu ñu nga xam ne lañ ko war a def ci biir université bi dafa am ñetti vole dafa am volet médecine général dafa am volet pharmacie dafa am volet euh, ñeent d'ailleurs euh, odontologie après mu am sciences infirmières ñun suñu xam-xam li mu gën a naaj ci mooy ci li nga xam ne mooy odontologie si euh, moom loolu laa bëgg a wax xam nga Sénégal tey booy xool Sénégal li muy rëy li ñuy dem ba seize million d' habitants cinq cent chirurgiens dentistes donc la ñu formé ko moo am Sénégal loolu moo tax boo xoolee ci biir réew mi même Touba bi ngeen nekk bu ngeen xoolee bu ngeen amee ñeen fukki da médecin li ngeen am ci dentiste bariwul loolu moo wër Sénégal te dañu ne Afrique pays Afrique yi OMS demoon na ba boo demee ci pays européens yi dañuy wax benn dentiste pour ñaari junni euh, nit mais ñun dañu demoon ba nga xam ne dañu ne nañu am rek nañu fexe ba am benn dentiste pour trente mille habitants mais loolu boo ko xoolee euh, Sénégal si cinq cent dentistes yi ñu am trois cent et quelques maanaam. Euh, trois cent et quelques yëpp ay privé bi la ñu nekk maanaam kon ñu si bari ña nga am na ay privé yu nekk ci région yi mais bariwul euh, nga xool ñi ngi nekk ci public bi kon bariwuñ euh, loolu moo tax vision bi nga xam ne sëriñ bi am na ko pour dugal loolu fi biir fii tuubaa dafay am solo ndaxte xam naa ne boo defoon ratio bi xool tuubaa ñaata dentisme fi nekk ak population bi fi nekk dinañ yéem mooy wane ne problème bëñ déjà problème la yoo xam ne dafa bari nit koo gis rek am na ko soit daf koy wax wala waxu ko ba pare problème bëñ dafa bari ay répercussions ndax nit ki am problème bëñ dafay am problème bëñ ki nga xam ne dafa am problème cardiaque boo demee seet ki nga xam ne moo lay faj daraan la demal xooli sa bëñ yi parce que problème bëñ dafa am des relation ak problème cardiaque problème bëñ dafa am relation ak problème li ñuy wax jabet fi mu ne nii su fekkee ne da nga am jabet tant que yaa ngi am infection sa gémmiñ jabet bi mën na bañ a équilibré loolu moo tax diabétologue yi toujours bu ñu xoolee dañuy travailler en santé ak euh, dentiste yi ñetteel bi ñëpp xam nañ ne bëñ lu am solo la ci nit ndaxte lépp lu ñu munti def muy lekk ak lépp ci gémmiñ lay commencé te bu fekkee ne ci gémmiñ bi la nga xam ne war nga ko def ba nga xam ne giir bi dana ko mën a kii bu fekkee ne amoo bëñ la li gémmiñ gi waroon def biir bee koy def te bu ko biir bi defee loolu mooy indi cancer yu bari yi ñuy gis ak yenn maladie yi ñuy gis kon loolu mooy wane importance ak vision bi nga xam ne sëriñ bi xam na am na ko ba xalaat pour que ñu former ñu mel noonu catégorie boobu muy des dentistes te ma xam ne formation dentiste tey boo xoolee Sénégal ñetti école la fi nekk ñaari yi privé la benn bi mooy université Dakar même université yi nga xam ne tas nañ ko ci réew mi ba léegi amaguñu doole. pour mën a def euh, dentaire ñoom ñëpp bëgg nañ ko waaye amaguñu doole bi pour mën a def formation dentaire ci université bi kon nag sëriñ bi su ko xalaatee ba mun ko def moom loolu dafa di loo xam ne day tax ñu ñi ñu mun ci sóobu bu baax pour dem ci parce que nag bu amee école dentaire fii benn dafay am rayonement international ndax li wóor ba wóor boo nee woon tey da ngay ubbi école dentaire li wóor ba wóor moom danañ am au moins deux cent wala trois cent yoo xam ne euh, bitim réew pour war ne dañu bëgg a ñëw jàng si te bu boobaa dañuy obligé def sélection parce que <laughs> ñun li tax ñu jóg aussi mooy Sénégal waaye dana tax ñu am rayonnement international parce que danañ am ñoo xam ne dañuy jóge bitim réew ñëw jàng si fii boobu mooy benn donc rayonnement bi ñaareel bi mooy feebaru bëñ ni mu baree ci dëkk bi man xam naa ci dara parce que euh, daanaa fi ñëw di fi def ay consultation gratuite loolu nga xam ne nag bare na ci réew dëkk bi feebaru bëñ yooyu comme bari na ci dëkk bi bu fekkee ne am nañ école bi di ci former parce que école bi dafay am ay matériel yoo xam ne dafay jël malade yi di leen faj loolu dafay permettre population bi mën a nag di ñëw di faju si te loolu tamit lu am solo la parce que dina permettre population bi danañ mën faju mais à moindre coût parce que xam nañ ne ñëpp xam nañ ne euh, tey booy faju bañ bañ dafa cher ci faju bi kon dana permettre suñu population yi nga xam ne ñu ngi Touba ca école ba ca université ba ñuy former danañ mën a ñëw former wu wante tamit ñaareel bi dana permettre waa tubaa yi nga xam ne bëgg nañ dugg ci domaine boobu ñu mën a am ressources humaines yoo xam ne fii ci Touba la ñuy bokk mu am ay passerelles yoo xam ne dana permettre ñoom ñu mën a ñëw jàng dentaire ba nga xam ne dinañ mën a toog ci réew mi dinañ mën a toog ci Touba bi pour mu nga xam ne dinañ mën a euh, pourvoir postes yi nga xam ne am na fi ñetteel bi mooy que ne dinañ mën a am centre de soins boo xam ne mën na nekk même ci hôpital bi ba nga xamee ne day nekk centre de soins parce que moo am ci yeneen dëkk yi te lépp loo xam ne am na ci dëkk yi rek mënuñu yéem war nañ ko mën a def fii bu boobaa dañuy am centre de soins boo xam ne day nekk ci université ba nga xam ne dafay am parce que dentisterie aussi dafa am ay spécialité te spécialité yooyu yàlla dafa def ñi nga xam ne néew ñu doole amuñu ci jot-jot te bu boobaa dana danañ ci mën a am jot-jot parce que centre de soins ba nga xam ne ñu ngi koy def au niveau de ci hôpital bu mag bi dana permettre ñëpp ñi nga xam ne bëgg nañ faju ci ñu jëm ci affaire ba mën a dem faju kon loolu mooy wane ne wax dëgg yàlla projet la boo xam ne euh, euh, ñu bari bëgg nañ ko mënuñu ko am waaye ci sëñ Muntaxa moo moom moo xalaat loolu teg ko te kon ñun ñi ñëpp dañ ci war a jàpp man mi euh, bokk na def naa pays yu nekk tey boo doon xool ñiy def formation dentaire Sénégal la ak Côte d'Ivoire mais yeneen dëkk yëpp amuñu ko c'est nag soit dañuy dem Côte d'Ivoire wala ñu ñëw fii te ñu si bari Sénégal lañuy ñëw formé kon nag bu boobaa <laughs> Touba day bokk ci ñu ñuy cité ne école dentaire ba nekk Touba déggi Sénégal bokk na ci yi nga xamee ne dañuy former ay chirurgien dentiste loolu laa ci bëggoon a tënk pour wane daal importance bi nga xamee ne le projet bi am na ko bi nga permettre population yi bénéficier wu dana permettre ñi nga xam ne ñi ngi fii daan dem Maroc ak di dem ay dakaar pour di faju ci affaireu bëñ danañu am spécialité yëpp fii ci Touba mën a faju fii ci tuubaa ak ay professeurs yoo xam ne ñoo xam ne ñoom ñooy jàngale loolu dina permettre ñu am ay soins de qualité maanaam soins yoo xam ne bu ñu demoon France tamit moom la ñuy am te danañ ko am fii te de te dana li leen di coûter du bari donc loolu mooy li nga xam ne buggoon naa ko wax si li nga xam ne moom moom mooy jëm ci affaire u bëñ. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, ñoo ngi leen di nuyu euh, di gërëm ñi nga xam ne ñii ñoo ñu boole ci euh, waxtaan bi ci invitation bi ñoo ngi ci kontaan trop jëm ci joxe vraiment impact formation infirmière ak sage-femme fii ci Sénégal euh, man docteur ci am laa tudd euh, may jàngale université Gaston Berger euh, Gaston Berger bu Saint-Louis ñoo ngi yëngatu ci yëf yi depuis maintenant plus de trente ans expliquer vraiment importance su formation infirmière defe naa ne wax ko du jar guddal parce que xam nañ ni. infirmiers yi sage femmes yi ñoom ñoo nekk li ñuy wax cheville ouvrière système bi depuis la petite case depuis le CHU maanaam case de santé bi ba ca hôpital bi gën a mag foofa dem da nga fa fekk infirmier te loolu tax na te terewul doyul doyul donc il faut ñu continuer def pourquoi Diourbel pourquoi par exemple Touba parce que simplement Touba dafa nekk ville bu nekk en extension en extension mu am ay création partout population bi macha allah di ñëw di ñëw di yokk kon ñu yaakaar ne def fi école boo xam ne bii dafay former ay infirmiers ak sages-femmes di toppatoo seen wér-gu-yaram population bi loolu ça devient une nécessité dañuy wax naan sax ay slogan buy qualité de soins qualité de soins mënul am sans une bonne formation ñu yaakaar ne formation bu baax ci université lay mën a génn moom la ñuy défendre tout le temps une bonne formation pour des infirmiers et des sages-femmes passe par l'université yàlla defal nañu nag ñu am ay njiit am ay sëriñ yoo xam ne yi bañuñ ci dara pour loolu taxaw loolu looloo tax fi mu nekk nii ñun ñu engagé wu que ne vraiment bëgg nañu lépp loo xam ne fi mu nekk nii sans waaye ñoo ngi koy jàngale fii ci ci Touba mu nekk loo xam ne lii dafay nekk mooy nekk flamme bi maanaam nit ñi dañu war a di jëlee fii léegi di ñëw vraiment di dem eh, fii daal moom moo war a nekk ëpp eh, bi encore eh, Touba yo soretul Touba en extension léegi mooy ñu ñu demandé yëpp macha allah mën nañ ñu taxawal parce que xam nañ ne bu fekkee ne par exemple sëriñ bi taxaw na ci ak taalibe yi ak vraiment compétence yi si nekk li ñu war a mën a am Touba fii yàlla mën na def ne mënuñu ko sax am yeneen ci université yi ñu nekk looloo taxoon daal pour gàttal ñu wax ne vraiment c'est une nécessité pour que ñu ubbi école bi fii à Touba pour que vraiment population yi mën ci bénéficier wu ñuy dem di faju ji bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyai wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa xayra xadimi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi yëkkati sunu kàddu di ko tàmbalee ci ab ziar ak nuyoo ba gën a sell ba gën a tedd jëme ko ci a cheikh muhammadin al muntaqa di ñaan sunu borom bàyyi ko fi te may ko wér ba li mu yéene liggéeyal sëriñ bi lépp ci toolu lislaam man koo liggéey te nu ànd ko ak moom di nuyu bokki taalibe yëpp di leen siyaare di sant nag tey ci mbooloo mi nga xam ne ñoo daje fii ñëwoon mu doon liggéey boo xam ne daa sofu rek ci liggéeyam bu tedd bu màgg bi nga xam ne bi mu ko yëkkatee ba tey ñëpp dañoo jóg ànd ko ak moom mu doon liggéey bu yaatu nag boo xam ne ni ñu koy waxee waxtu wu ne dañ ko séddale ci ay pàcc maanaam ay commission commission yu bari lool yoo xam ne bari nañu ñu ne ci biir liggéey bi sax te xamuñu nu mu toll waaye benn bu ci nekk rek dañuy jàpp ne mooy bi ëpp solo tey nag ñu daje woon fi ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllu wér-gu-yaram ci mu jàmmaw ci Ahmadul Xadim bi nga xam ne ni ñu koy waxee waxtu wu ne ab université lañ koy tuddee ngir barkeelu làmmiñu Cheikh Abdoulaye Ahad mi nga xam ne moo ko sosoon te Cheikh Mouhamadul Mountakha ñëw di ko yëgale waaye système wala modèle éducatif wala manhaj tarbawi la boo xam ne dafa ëmb mboolem xeeti xam-xam yi nga xam ne doomu aadama da ko soxla ci ak dundam ni ñu ko Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu jàngale woon te ba mu ñu digal ñu jàng wax ne nañ jàng tàmbalee sunum jàng ci xam-xamu tawxiid buñ noppee ñu teg ca xam-xamu fiq buñ nekk noppee ñu xam ñu teg ca xam-xamu ihsaan te mooy at tasawuf waaye buñ noppee nag bépp xam-xam bu am njëriñ ñu jàng ko wa kullu ilmin bi manaafi'a yafi bépp xam-xam boo xam ne dana jariñ doomu adama ci dunduk àddunaam ngir mu mën a dund dund gu sell gu teey gu gu ni ko sunu borom bëgg ci moom waajalee ko ko itam mën koo dund mën a texe ëllëg waaye nag ku ne xam na ne wàllu daara ji daar daari alxuraan moo ci jiitu alxuraan mboolem xam-xam yi am njariñ yépp ñu ngi ci biir waaye daar yi majaalis mooy xam-xamu diine bi ma waxoon mooy xam-xamu fiq ak lépp lu ci aju ak daaray tasawuf mooy ihsaan nga xam ne bépp xam-xam bu am njëriñ ci wàllu googu daf ci dugg waaye nag daa ay métier jàngi métier yi nag ay département wala ay ay ay yoo xam ne métier lañ fay jàngale métier yooyu nag mépp métier moo am njëriñ ci dundub doomu dañ ko fay jànge waaye rawatina nag njàngu médecine ndax ku ne xam na ne faju ak wér yaram moom dafa bokk ci li mënta ñàkk ci nit nit bu wérut du mën a jaamu yàlla nit bu wérut du mën a liggéey nit bu mënut du tal boppam du tal boromam mm-hmm. loolu moo tax boo doon ci wàllu gu am njëriñ goo xam ne dañ koo bàyyi xel lool te jox ko yitte sunu borom nag ni mu tànnale sëriñ bi nga xam ne lenn lu ne la ca gën la ko tànnal lenn lu ne la ca gën la ko waajal lenn lu gën lu nekk la ca gën la ko may dafa feeñaat ci jotaay bi tey ndax bi ñu tàmbalee liggéey bi ba tey pool bu ci ne wala euh, commission bu ci ne wala filière bu ci ne ay sommité lañ ko dénk ñoom ñoo yor liggéey ba kon tey ñii biñ présenté woo rek feeñ na ci ñi nga xam ne ñoo moo moo moo mooy looluwaat waat feeñaat na ci bu baax a baax ñu dénk leen nag wàll gi muy waajal wàllu wér yaram professeur Moussa Badiane di ko coordonné waaye docteur Cheikh Ahmadou Mbacké Lo teewe ko docteur Makhouredia am teewe ko Serigne Souley eh, Diallo moom itam nga xam ne ci wàllu gestion bi ndax ku ne xam na ne boo waajalee ay boromi xam-xam waajal ay programme defal li nga war a def lépp itam dafa aja nag ñu teg ko ci doxin wu aw si yoon woo xam ne dafay dëppoog xam-xam dëppoog loi ak règlement yi nga xam ne mooy dox ci àdduna bi yëpp rawatina yuy dox fii ci biir Sénégal ndax sëriñ bi daf ne nañ yoonal lépp lu na dëppoog yoon moo tax bu ñu ci filière yi ñuy jàngale yëpp itam UFR yi bu ci nekk norme standard la ñuy jàngale waaye dañoo dëppoog norme CAMES dëppoog itam règlement yi nga xam ne moo régir yi nekk biir Sénégal yëpp. wàll gi ñu tëral tey nag moom doon ci yi nga xam ne dañ ko jàppoon doxe ci ñaareelu jéego ba maanaam ci deuxième phase bi waaye ñaari at yi ak mbas mi fi xew tax na ñu xam ne lii moom daanaka mën nañu wax ne moo war a jiitu ndax wér-gu-yaram ku ne xam ne sooxe na ci àdduna bi sooxe na ci Sénégal waaye rawatina Touba gi te dañoo soxla nag faj moo xam ne fajum qualité lay doon qualité ba gën a baax ba ñu am fu nekk ci àdduna bi waaye nag mu wayaf ba tolloog kàttanu nit ñi ndax xam nañ ni itam faj ci àdduna bi yëpp dafa laaj koom-koom mu bari kon ñu new doole wala su leen cee génne ñoom sax ñoo ko gën a yeyoo ndax ñoo gën a ñoo ñaare tawat yi sax booy seet ci ñoom lay ëppee wala bu leen dalee duñ mën a faju loolu moo tax lii moom doon boo xam ne sëriñ bi dafa joxe ndigal bu ñu tàmbalee daari alxuraan ji ak majalis bi ak kulliya dirasatil islamiyya wal lugha al arabiyya mooy UFR étude islamique ak la arab arabe buñ ko tàmbalee daal di ci teg bii nga xam ne moom day tàmbali di jàngale di tàggat ndaw ñi waaye nag di fajaale nit ñi ci anam ga gën a jàppandi nga xam ne ku bëgg a jàng mën a jàng waaye ku tawatit foo mën a jóge ci biir dëkk bi ak ci région bi ak ci biir Sénégal boo ñëwee fekk fi ay boroomi xam-xam ñoo xam ne ñooy sommité ci wàllu médecine ñu man laa seetu sa wér man laa may ay garab man laa man laa mën laa dimbale ci ci ci ci jàppale la ci liggéey bi loolu moo tax ba eh, eh, ñu daje woon fi tey di leen sant nag di leen gërëm ci turu sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Mountakha nga xam ne liggéey bi moo koy toppal boppam tey ci fajar rek wax nañ ko fi liggéey bi toll yëgal ko ne daje bii dina am nga xam ne kon moom liggéey bi moo koy toppal boppam lu ci xew mu di ko xam di joxe ay ndigalam di joxañ ay joxañ ñu di ci jaar kon ñu ngi leen di sant ci turam di leen ñaanal sunu borom gën ñoo gàttandu gën ñoo tawfiixal ba li nga xam ne yéene nañ ko liggéeyal sëriñ bi yëpp ñu mën ko def ci barkeb Cheikhul Khadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.